ci wàllum Karim Wade mm-hmm. moom tamit nee nañ ko daal dañ ko jatan ne ko moom mënoo bokk si ñuy jagaan baat askan fii ndax bu ñu xoolee recours yi ni mu demee procédure bi ba tey ji ak Cour suprême bu yàggul dara ñoom ñu déclare incompétente par rapport à cette question. c'est par rapport au cas Karim Wade moi aujourd'hui je ne comprends plus les Sénégalais en réalité en de campagne bi ñëpp pour Abdoulaye Wade daanu c'était le cas Karim Wade. ñëpp xam nañu Ablaye Wade a lui seul Sénégalais yi bëgg nañ ko am na fu ñu ko teg il a eu quelque chose nit ñi ils n'ont pas sanctionné Ablaye non ils ont ils ont sanctionné Karim te ñëpp xam nañu Karim Wade il de commis des de ci gestion ñu condamné ko à cinq ans de prison à sept ans de prison ferme daf ko ay kii amende ñu ko defee ay amende comme Sénégal moom nit ñi kilifa diine bu ñu ñaanee fa nga may leen kilifa diine ñaan nit ñi président ni ñu gracier ko mu jël décision dem Dubaï toog fa mais ñëpp xam nañ ni dans la loi bu ñu la condamné à cinquante ans de prison ferme pour détournement de deniers publics moo doon nekk candidat c'est-à-dire que Karim bi ko condamné ba pare même ñi wax xam nañ ni mëntu nekk candidat c'est-à-dire que loolu on n'a pas besoin d'être un expert boo xam ne Karim Wade mëntu nekk candidat maintenant nag Ablaye Wade moom comme vraiment c'est un politicien très très truc am na lu muy xaar am na lu mu bëgg peut-être ñi mu àndal xamuñu ko wala nit ñi xamuñu ko mais Abdoulaye ci moom xam ni Karim Wade mën a nekk candidat. xam nga xam nga PDS le problème qu'ils ont moi je pense que dama mës a kenn mës wax ni Abdoulaye Wade bu ne woon golo bi moo ñu jiite sax golo bi moo ñu jiite et c'est très parti parce que Abdoulaye Wade fi mën a def nit la koo xam day jeexal day jiite mbir dem ba mënatul mu arrêté. Mais PD, c'est un grand parti au Sénégal. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment dégoûté quand je vois un parti comme le PDS, nous xam qu'il y a un candidat de foncer sur certains sujets. te kenn xamatul sax lu mu lu muy nurul ñoom ci moom xam nañ ñi waa mais PDS ñi fa nekk ñoom ñëpp xam nañu kan kan Wade du nekk candidat ñoo la ko gën a xam foofu dañuy wax ni mais xam nañu kan Wade du nekk candidat mais ñoom ci wax nañu Karim Wade mu nekk candidat Karim du sax ñëw du ñëw sax du ñëw sax Sénégal. parce que li li mu jaral gars yi nii jaralu ko Karim Karim Wade. jaralu ko. non gars yi wax nii rek mais Karim Wade du du du ñëw sax Sénégal. non ñam na ñam na <laughs> ñam na prison xam na li ci prison <laughs> waaw.